jërëjëf ami internetu B Pro amaat mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa su ne leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel yéen ñi nga xamante ni yéenay teewlu euh, buur géwal ak duudu ngoonalu làmb euh, xanaa comme ni ñu koy tàmbali defee rek di ñaanal aji dawlu yi yàlla yërëm leen taxare leen àjjana ñi nekk si hôpital yi yàlla na borom bi fëgg seen bopp ñu jóg waaye ñi caabi féete ginnaaw yàlla na borom bi may leen ñu génn ñi nekk bitim réew yàlla na leen borom bi may ñu am lu ñu indil seen njaboot yi Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm tey ajjuma la di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak waaye gis nga li nga xamante ni mooy open press euh, Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ni moo di Tapha Tine ñu war ko waxtaane tey Doudou ak Bour Bour maa ngi lay nuyu di di la ndokkeel bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan soppe yeeg yooyu jërëjëf Dourou dañuy wax rabbi sarax li sadri wa yaxsur li amri waxlul uqdatan min lisaani yasfaqul xawli Dourou di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla yàlla na yàlla wàcc ci moom ngërëm ak yërmande ak leer moom ak i saxaabat yi ak ñi nga xamante ne que ñooy ahlu baytu rasul waaye di ñaanal suñu wajuru jigéen fa mu tëdd yàlla na ko fa yërmande suñu borom fekk. ak kom fa fekk ak ko fekk di ñaanal suñu baay bi fi des ak suñu tante yàlla bàyyi leen fii di fëjale suñu njëbal rek ak suñu yaakaar ci yi moom laa Cheikh Ibrahima Mbacke ibn Serigne Mbacke Madina di ko ñaanal sama borom defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim Cheikh Cheikh Madina mi nga xamante ne moo toog jotaay borom Madina yàlla bàyyi ko fi te sàmm ko te dooleel ko waaye di ndokkeel ak ñaanal borom jotaay bu taaru te riche di yaa Cheikh Ahmadul Muxtaar ibnu Cheikh Mahamadul Moustapha di ñaan di ko ñaanal yàlla ci centenaire bi ñu jëm di centenaire u màggal Daaru Xuddoos ñu ñaan yàlla liñ ci naal yépp yàlla neen yàlla dimbali ba yeggale ko waaye di ñaanal rek góor gën ne woon illaahi kalimatillahi al ulya Cheikh Mahamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mahamadul Bachir di ñaanal si ñaam di moo di menda yàlla kàttanal ko dooleel ko ba li mu yéene njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootu Cheikhul Khadim gépp yàlla dimbali ko waaye di yaa doomi Cheikhul Xawmi Seydil Boubacar si di ko ñaanal yàlla jotaay bi mu doon ci maamam Cheikh Seydil Hadj Malick yàlla bàyyi ko fi mokki rakkam ak doom yeeg sët yeeg waa xadra bi yëpp di ko ñaanal cheikh Mouhamadul Mahi moom Mawlana cheikh al radiallahu taala anhu yàlla bàyyi ko fi mu njabootug bàyyi bàyyi yëpp ci barke bàyyi ak bàyyam ba waaye di ndokkeel ak ñaanal cheikh Ahmadul Muxtaar ibn Sina Madione mi nga xam ne tamit tey moo toog duulu jotaayu Seydina Limaamullahi alayhi salaam waaye di ndokkeel waa jaamal waa Pire. Hmm? bàyyi wuñu kenn duudu ah, di ko di ndokkeel waa ba nga xam ne ba ñun dañ fa am wàll wàll bu rëy boo xamante ni que di ñaanal waa kër Ahmadou Ndak Seck yëpp yàlla bàyyi leen fi Hmm, di ñaanal waa kër maam alaaj ni ahmadou baru njegéen mhm. euh, tafsir bu mag boobu mufti bu mag boobu nitu yàlla bu mag boobu waaye di ñaanal njabootu waa kër cheikhul umarul fuutiyu yàlla bàyyi leen fi ma Madani yàlla dëgëral ay tànkam di ziar waa jàngu bi duudu di ziar ñëpp mhm. nee naa gars yi suñu nuyoo ku mu neexul rek kiiteel ndax li làmb ji neex neex ni yëpp nag mag ñee ñu ko gënal ak diine jéeg jàmmi réew mi mhm. foofu la ñu njëkkee ba fu mu yem rek ñu ko lu ñuy wax soo waaw. am na ñoo xamante ni sax ñoom euh, làmb ji intéressé tu leen léegi. ci buur pour une minute trente ans pour les salutations bu ñu deful loolu lu ñuy def. Mm-hmm. yu baax yooyu nañu koy def. lu yàq dara dóodóor. dem na gaa yi fu ne coorañ fa. ana buur ana buur buur deful war nañu fure buur waaye man bu ñëpp di wax du ma wax. Mm-hmm. déedéet bu ñëpp di wax da ngay def tekk parce que waxandoo ak nit ñi ça ne veut rien mm-hmm. da ngay bàyyi ba ñu wax ba pare. nga génn wax li nga xam wala li nga gëm ndax làmb la te dinañ ko waxtaanee tey. <laughs> dinañ ko waxtaanee tey mu wax lu am solo te defe naa ni làmb euh, làmbaatu lañ koy wax euh, euh, ku ne maa xam làmb ne ko bàyyil ba dimanche. Mm. bu dimanche nga xool waaye buur dimanche bi ñu jëm ni coow nar naa amati. Mm. wala yuuxu dina jub fuñ ko dul foogee. ci diggante Tapha ak Balla Gaye 2 Tapha Tine génn na def point de presse wax na li nga xamante ni moo dox ci digganteem ak ki nga xamante ni moo di Balla Gaye naka la war a aborder ak ñi ko wër euh, ñi ko wër waxtaan na ak ñoom buur communication bi nga xamante ni moom la Tapha gi def gis nga ko ak ni nga xamante ni mooy forme physique bi Tapha yore. Hmm. Tapha n'a pas change sur sa communication. yàlla daf ko bind mooy nit ku xaw a am dal. quelque que soient les circonstances il faut qu'on dise la vérité quoi mooy nit la koo xam ni mbër la ci jëmm ci mais du mbër ci ci langage wax dëgg yàlla yoon ci waaw donc man j'attendais pas grand chose ci point de presse boobu euh, munoon def li mu wax yëpp point yi mu abordé pratiquement mun nañu wax ni que il nous donnait les mêmes réponses depuis le début ñenn ñenn ñu koy Tapha Tine mu ñëw sol bàyyi laat boobu tey mu ngi nëbb forme moom nag ah c'est normal bu njëkk ba wax na ko njaxasu Baye Fall la jiitaloon bii ñëw na jam bàyyi laat peut-être <coughs> pourquoi mu nëbb formam comprendre guma ko day bañ Balla Gaye gis ni mu toll day bañ ñu gis ni mu toll day day day day mais quelque soit fa il a un très staff boo xam ne ñoom ñoo koy décideel mm-hmm. et puis mu nekk mbër mu obéissant aussi vis-à-vis de son staff mais gis nañu benn Tapha bu sérieux de lors mais benn Tapha aussi bu méfiant mooy benn Tapha bu dal benn Tapha aussi bu buy moytu lu bare bare bare bari boo xoolee sunu fees fees mujj bi même buy wax des fois daf ñuy indexé ñun <laughs> mooy li may def wala ni ma mel muy yow muy kee muy kee muy kee kenn duma ko kenn duma ko donk mooy la ma doon wax te tey laa ko gën a wax bu mu moytu ba ñëw ci làmb ji ba bëriwaale ak moom wax naa la ko keroog ne la na mu ñëwee 2S c'était pas bien. mooy coow la bari woon na trop ci bunt ba ci Balla Gaye lii la indi man ñii laa indi ñii duñ dugg ba bi ñu toogee ci plateau bi am na waaju taxawoon toogoon ci seen ginnaaw gars yi yoroon ci mu kaay dañ jékki-jékki singali waa ji ne ko magu rakku Balla Gaye nga finalement Balla Gaye moo leen ne man sama rakk kay du ñëw fi donc méfiance boobu sepa pas bien dul tamit dama wax ni bu amee dara lu muy moytu ci Balla Gaye de lu muy sóor ñu rend ko fan la koy teg suy méfié wu ci Balla Gaye 2 wala muy méfié wu wala muy moytu dara ci làmb ji dañ ko war a rendi. mais li ngay wax nii dafa mel ni moo daloon guy gi contre Ada Fass. warul guy gi signalé naa loolu du presque deux mois man ak yow bu dee ci te rappel. waay dëgg la. ne la nañ ko ñëpp ragaloon nañ ko ñëpp ba mu jàpp ni dafa war a moytu ñëpp ragal ñëpp. te damay ragal dimanche wala samedi ci guddi am na ku ma dégg ci TikTok benn booy bool bool mu ne wala jox nañ ko ay information ne ko am na benn kaar bu war a ñëw stade indi fa bëy bu ñuul rendi ko fa il ne faut pas essayer mettre Tapha sous pression gis nga Doudou suñu wax ji hmm. contre ñu Tapha faraluñu Balla Gaye contre ñu Balla Gaye faraluñu Tapha Tine yow mii mbër mi mm-hmm. yaa yaay jël jariñu mbaa nga bàyyi man chaque noonu laa ko waxee mm-hmm. nee naa la su ma doon mbër man ki am lay critique ci man laa gën a respecté ki ma naan yaa fi man waaw ndax ki may critiquer dina am moom lu may moytuloo mm-hmm. loo xam ne man xawma ma koon wala gisuma koon moo daloon booy ñaas yi Balla Gaye yaayam dafa na ko déglul ji. wallaay te ca veille ba laa ko wax. Hmm. ne Balla Gaye de bu dee ay mbokk mag may déglu bés bu arbitre sifflee mu tibb suuf mépp wutali booy ñang danañ ko daan. te noonu la deme mais bu ñu mettre Tapha Tine pression lamb du affaire de bawol bawol du du affaire de soose. Hmm. duulu. nañu moytu cette ethnici ethnicisation boobu ñuy dugal ci làmb ji te mu ngi ciy dugg. ok ñun ay bawol bawol lañu ñun ay Casamance Casamance lañu du loolu c'est pas bien. Balla Gaye dee Tapha ñaari adversaire lañ ci genn ngoon. dëgg la lundi mardi grand Thioune ànd ak Abdou Aziz ñu dem CNG ku ne jël sa reliquat. Mhm. millions yu bari yóbbu sa bu ñu yóbbu làmb ci niveau boobu. bala Gaye de Tapha Tine ne sont pas des ennemis ay adversaires lañu. arène nationale bi sécurité bi fa nekk kan la ñuy permettre samedi jugu di nga dem gàddu sa bëy bu ñuul di ko fa rendi mais yooyu c'est des foutaises yooyu amul Tapha làmb ji ci moom du làmbi gàllaaj làmbi doole la làmbi force la làmbi fit la làmbi xel la du làmb gu duñ koy gëmloo parce que am na tey lu ñu koy teg rek dinañ ko gëmloo meneen mbir te alors que luñ koy gëmloo li ci moom moo ko ëpp li ci moom moo ko gën Tapha Tine a une forme physique extraordinaire il a une fraîcheur physique extraordinaire mu ngi màgg ci sport il est bien encadré am ay coach yu baax am saf bu baax bu nitee nag ay nit kese ñoo ko wër boo jëlee ku mel ni Bada Dione rek doy na nga jël ku mel ni góor gi may ndeewaan doy na nga jël grand bu mel ni grand Thioune ah ñoom grand élage il est entouré que des gens lucides et corrects donc buñ ko abal pression ci bés bi pression boo xamante ne que soxlawu ko. mais bu mais Bour Tapha Tine moom digganteem ak Eumeu Sène moom moo bëree làmb ji parce que xamal nga li tax ma ne moo bëree làmb ji. Mm. mooy bi mu toogee. seen dernière face to ba mu ne Eumeu Sène ba dafa laar mm. orgueilam ba mu ne su ma nee la poussé la may pourquoi abordé wul loolu ci làmb bi parce que làmb ji moo ko wane moo ko warul wala may li ma la wax mbër bu la xasee ba daan dafa am benn ascendance psychologique buy ci yow ak moom loolu nag kenn mënu ko teree bañ a sóor c'est normal Tapha Tine tegg tuuma la bëgg ci làmb moom la soxla Tapha Tine dafa am revanche bu muy jël ci Balla Gaye 2 Tapha onze ans il rêvait de bëre ak Balla Gaye 2 daan ko muy un un il a tous les atouts yor na arme yëpp à sa portée de main mooy tey boo doon jël tey en terme tey de favoritisme mën nañu ci wet gi Balla Gaye il est ndax moo ko daanoon mais bu ñu jël en terme de statistique Tapha Tine est le ndax ci biir dix ans yi Tapha Tine amu fi defet te ci biir dix ans yi Balla Gaye de Boy Niang la fi bëreel Gris Bordeaux Bombardier defe naa bu ma juumul ak Boy Niang ñaar ko ñàkk peut-être que ñaar mu am ci ndam maintenant pression bi ñuy bëgg abal Tapha neexuma bugguma ko man déjà parce que déjà dafa am lu muy suur ci Balla Gaye c'est normal donc buñ ko abalee pression dafay am benn poids boo xamante ni que ci ay épaule warul woon ci bés bi bés bi Tapha Tine war a ñëw dimanche calme lucide très joyeux très joyeux bu mu ñëw ñu naan ko waa CNG dañ lay xeex Aziz dafa jënd arbitre bii bul jaar côté bee bu ko def bul nuyu kii bul nuyu géwél bee bul xool géwél bi waykat bi bëggula téetéet Tapha Tine dafa war a feetu dimanche ñëw waree ne ka man la Tapha Tine bu osewul <laughs> lay dudd bëgguma wax su osewul dimanche ba Balla Gaye de jëlee devant dina dund làmb ju metti avant le combat te waru ko dund ndax ki mu bëreel dafay bandi géew di saay-saay bu organisé bala ngay te li mu def ci xel mi gëm ko mooy soixante dix pour cent wala soixante quinze pour cent des boo leen laajoon dañu naan Tapha Tine ko mën ci combat bi dégg na Balla Gaye dafa feebar ci combat bi dégg na Balla Gaye amut doole dégg na lu ne ci komba bi te Balla Gaye 2 est un homme de défi toutes les défis wala li ëpp ci ay défim daf ko gagné techniquement Tapha mbër muy bëre tànk gauche la écran loxo gauche bi te Balla Gaye 2 kuy teg pied gauche jaaxaloo ko duudu mm. gars yi buñ leen gëmloo ni que Tapha Tine mën Balla Gaye 2 làmb la Tapha mën na ko daan Balla Gaye 2 mën na ko daan Balla Gaye 2 même dimanche il va avec les armes à la main. ñu buur suy wax dañuy jàpp ni buur Balla Gaye la faral te ku xool. si ginnaaw dix combat wu Balla Gaye mm. da ngay gis ni euh, gaynde mooy bëre nit mbër kaamin mooy bëre ci at yooyu nga ko teg. Balla Gaye sax laa gënoon a yëpp man tuddee naa ko Fawzeyni tuddee naa ko fi Simba saboté naa ko xeetu saboté bu naa ah. mais moom vraiment il la une grandeur d'esprit boo xam ne xam ne ni buur day day neexal rek. mais du dama leen a Balla Gaye de ñi mboole daan leen mbër mënta boole ku ñu mel noonu daan leen. Balla Gaye 2 dàq lu bëre Tapha Tapha Tine dàq lu bëre Balla Gaye 2 de buñ dee xool en terme de technicité Balla Gaye 2 moo dàq bëre tafaati Tine c'est ça la réalité. mais buur li am fit ñeme di wax yenn yi. wa maa shahidnaa bi ma alimnaa. waaw moom dëgg la. Balla Gaye 2 mbër dàq bëre ci làmb ci waxuma pour li mu daan Tapha Tine déedéet. dama ne ñi mu boole daan leen Tapha Tine boolegul ñu mel noonu daan leen te loolu moo am. ki daan Yaxya Jóob Yékini lekk nit dong la deful ci bëri. ki daan Yaxya Jóob Yékini doy na bu fa palmarès su ba Balla Gaye 2 yemoon jeex na. doy na sax doy na dama ne la maa daan Yaxya rek. <laughs> buur ñu ñëw si li nga xamante ne mooy open press am démb gis nga li nga xamante ne mooy état bi Balla Gaye yor hmm. euh, ak li nga xamante ne mooy physiquement buur naka ngoo ko gisee Balla Gaye 2 ba pare ak ambiance bi mu ñëwee ci open press bi woon naa la du Balla Gaye 2 keroog ba muy dajeeg Tafatine Esat lu ma la wax maa ko tuddee woon Fawzeyni tey maa ko tuddee simbaa nga ne ma ci lan kuy Simba man la le roi lion Balla Gaye de forme bi mu yor nii man moo ma gënal la mu indi woon contre Bombardier yi. yow mi man wax am na ñu naan Balla forme bi. moo ma gënal la mu indi woon contre booy Niang. am na ñu naan forme bi baaxul de. moo ma gënaloon la mu indi woon digganteem ak Gris Bordeaux parce que Balla Gaye de amatul biir te ñetti combat yëpp daf ko bëri kol Balla Gaye de am na cuisse normal am na appui bu baax. benn bi des mooy am na flexibilité ak rapidité loolu moytul ma mbër mu ami mbër mu mën a walla mbër mu ami pexe ba noppi am flexibilité moytul ma ko. Mm-hmm. en temps nag Tapha Tine fi stratégie bu bari mooy ñëwatul ci bés di saam boppam ñëwatul ci géew di saraxe bëreem Tapha mais duudu bu mu indaale ci xol bi daf ma daanoon dama koy daan déedéet bu mu indaale je suis le géant du Bawol bu mu indaale man maay punkal mi bu mu indaale bu ma ko nee puusal day puus bu mu indaale bu ma ko dóoree mu dee ah, ah. Balla Gaye du ñooñu li may wax du lu neex de hmm. Tapha Tine na teg bëreem ci yoon su tegee bëreem ci yoon mook Balla Gaye de du yàgg su tegee bëreem ci yoon ñëw indi lu si jute sóorul Balla Gaye de ci xel seen bëre du yàgg mais erreur bu mu def erreur boobu c'est là profit de Balla Gaye de du Balla Gaye de am ndoot la ñu ngi naan baaxatul gëmuma loolu de bés bi jaral na ko de moo ko tafaatin ñaari mbër yu bés jarale nii comme nii du du gëj naa ko gis keroog ba bala Gaye de di taseeg di taseeg Yaxya Jóob Yékini ni mu leen jaralee nii est-ce que du empereur bee tax empereur bi ah duudu ah coow li bari na de boo ko jëlee weer wu dee wane nga am un million cinq cent Jador dina la jox ceeb ak diwlin pendant six mois. ba ba ngay amaat combat. chips crack dina la jox say doom six mois de chips. seen bu mag bi ñoom diggante beeru Adja ñoom Chocopin ak gaa yooyu ñoom Joker seen. ñoom Kobara. ñoom Akim Akel dinañ la ko jox six mois nga ñëw Ndikuman groupe Cobra ak original dinañ la ko jox six mois te attention. même yow mi nga xamante ne que yow yaa daanu ci komba bi salaire u cinq cent mille francs ngay ah, am ak produit yi gars yi yóbbaale. mais buuru empereur bi yóbbu na coow. roi des ah, ah, déedéet moom kay xanaa nañu li ma xalaat mooy croix beeg euh, roi beeg empereur moom danañu daje ñi moom. du combat bu bëri enjeu mu ngi nii buy édifier le combat Siteu Modou Lo combat bii day édifier combat Siteu Modou Lô. Buur loolu après lañ koy waxaat mais buur <laughs> coow na raam ci dëkk bi ci dimanche lay am ndax <laughs> ki yor couronne empereur bi dana coow ak yor roi roi des arènes bi mais mais buur mais buur Balla Gaye 2 Balla Gaye bi baax na nga ne mais euh, ñu jëm ci li nga xamante ne mooy combat euh, combat boo xamante ni. Hmm. Balla Gaye 2 combat bii moo ko nar a dugaatal ci làmb Balla Gaye 2 bu daanoo xaw ma kuy daan yàlla xam mais Balla Gaye bu daanoo fan la jëm. bu daanoo. waaw ah mais bu daanoo xam nga mbër bu xasee ba nekk ci kaw ñaare day am potentialité wu bëre ay champion. xale yaa ngi ñëw bari nañu moom ak tafaatil yëpp d'ici un an deux ans dañu gëstu booy c'est normal. ndax làmb dama wax ni bëreeg sag maas la bëreeg say mag bëreeg sag say rakk ñetti étape yooyu la te tafaat ko dafa wax ci face to face duplex bi lu am solo nee na ku ñu naan sa carrière li ci des bari wala bareetul ñoom ñëpp nii daanaka seen carrière li ci des bareetul la ah, il faut ñu xamee ko noonu donc il faut ñu xam ni que booy dañuy ñëw. Balla Gaye 2 bu daanee ak bu daanuwul mu ba Tapha bu daanee ak bu daanuwul ñoom ñaari adversaire yu ñu am mooy diggante Siteu ak Modou Lo. ok Tapha ak moom Siteu musta bëre ak Balla Gaye bu Balla Gaye daanee Modou Lo daan ñoom ñaar la bu Balla Gaye daanee Siteu daan ñoom ñaar la bu Tapha Tine daanee Modou daan moom Modou la bu Tapha daanee Siteu daan mook Siteu la donc moo tax man la seen combat dafay édifier combat bële. mais en tout cas daal ñu ngi jëm ci bés boo xam ne bésu feet la. képp kuy supporter moo xam supporter Tapha Tine moo xam supporter Balla Gaye nañu xam ni que làmb amul animosité làmb du rayante làmb du guerre làmb du affaire du làmb du affaire de xeet du affaire de waasu làmb du yooyu yëpp làmb suñu sport national la làmb fola ak ree Balla bu dee soose tafaatin di bool bool am na fu ñu tase mhm. te foofu ñu tase leen gënal mbokk gi mooy tase nañ ci Cheikhul Khadim Balla Gaye taalibe Sëriñ Tuubaa la tafaatin taalibe Sëriñ Tuubaa la dem bu wane na ko ñëw jëm bàyyi laa tam bu cuq teg ci laafaam bu cuq ñëw kaalaw Cheikh Mamadou Moustapha lañ ko tuddee war na donc nañu ko jàppee noonu ñëpp ñëw jënd jëndalante ay crème ci kaw tribune ba xelante ay café Touba jëndalante ay ndox mhm. ñaari mbër yi ñëw wane ni que ñoom ñaar ñëpp ay doyen lañ ci làmb ay champion la ñu. ñëw bàkku bàkku mu neex. tuus tuus mu neex bëgguñu làmb ju bari coow. CNG bi tamit aussi dimbali ñu dañuy dix-neuf heures la ñuy tas làmb ji wala vingt heures mënuñu ko yaakaaruma ko ndax fet la te bugguma doodo ñu ne heure bi jot na am benn mbër bu ne ci diggéew bi keneen ko taxaw ñu yëkkati ci loxo kooku buñ ko defee nañu assumer seen responsabilité quel que soit alpha nañ ko assumé de làmb la làmb du football. ne ma naan cette décision la bàyyi leen saison bi li des bariwul bu saison bi jeexee ngeen dajale tout les acteurs de la lutte ngeen toog waxtaanee ko trouver ay solution du yàq dara. mais bu leen jël des décisions de yàkkamti wala pour fair pleur à l'autorité non non non làmb ji gëmuma ne que dana jeex dix-neuf heures trente je ne pense te nañ ko sóor mooy sécurité doomu aadama yi ci biir stade bi ak jàmm ji ci biir stade bi def naa ne moo ëpp doole foofu benn une temps wala benn une heure bu ñu bi ñuy takk làmb jur. Mm-hmm. mi noonu ñu jëm màggal. buur loolu Serigne Touba defar. Doudou est boobu mën naa ko tontu. Serigne Touba. <laughs> lay ndeysaan fa radiyallahu taalaahu anil abdil qadimi riddan yasma wala wa sawil mahabba <laughs> du da nga yàq émission laal naa la defal na ma lépp lépp mooy dañu wax ni doom bu amee ay yu baax yàlla def koy dimbaleek wasila bu baax mm-hmm. euh, yow ñoo bokk ci génn kër gi ñu am yenn histoire yoo xam sax bëgguma ko di nett di parce mm. que mën na am lu mu heurté man bi may dugg ci yoon murit mm-hmm. euh, korite la ci guddi maan ak sa benn laxas boobu jamonoy booy disco la mm-hmm. ñuy doxantu mm-hmm. jaar buntu kër si Mbacke Madina ci miir bi noonu Castor. maa ngi gis gaa yi si kër si betti may ree quoi di ñaawal ndax gel bi murit la woon. Mm-hmm. di leen seen jàng yi chef yu ko <laughs> jaaxal la ba trop. gel bi la ma yow da ngay caaxaan rek. moom moomu moo ma jëndal ay yére paasal ma yóbbu ma Touba. ñu dem ba Touba màggal bàyyante mu ñibbi ma ñibbi. at ma ca topp julli korite la même chose ma bëgg julli ci sunu kër ñu ne ma jumaa ji ñu ngay julli amet baabu sam benn copain lax la ñëw jël sama ne ba kër sëriñ fii xaar yàlla ñëw jullee fi kër sëriñ Mbàkke Madina bi <laughs> ñu dem maa ngi gis yi ziar sëñ ma gars la rek ma ñëw nuyu sëñ ko ça va ça va sëñ Ibra tey at ma ca na xar bu ñuy wax sëñ Mbàkke Sekk yéema ne ma boy damaa ñu dem ma ziar sama sëriñ ma ne ko booy man damaa damaa sonn dew ma de mu génn ma ne ah garaawul quoi bàyyi maa nag ma ànd ak moom ñëw ñu nuyu sëriñ bi ma nuyu ko sëriñ bi ne ma ngom gëj naa la gis ma ne ko sëriñ bi man foo man xamoo ma di mu ne ma xàq ah, ay <laughs> ah waaw ma dem taxul ma jébbalu ah mm. am naa doom ba tuddee ko sëriñ Mbàkke Madina taxul ma jébbalu sëñ Mbàkke bi mu juddoo mu tuddee ko borom Madina màggal jot may wër sëñ bi mënuma mu gis maa ngi njaag mbay di ko wër di ko wër mënuñu ko gis njaag na ma nañ dem am naa suma doom joo xam ne day sëy xombal te xam na ko at ma ca toppaat laay soo ko gisee waat ak sëñ Ibra tombéeg waxtu taakusaan timis ma ñëw borom ñaamaar ma ñëw ñu ne ma sëñ bi fat na man leen bu fatoo dina ubbi mu dégg coow li woo Zal Dieng ndeysaan sama góor gu baax ne ko loolu lan la Zal Dieng expliqué ne ko kii daal moo fi ñëw na dee foog mu gis la ñu ubbil ma ko ndeysaan ma ñëw sukk ci ay tànkam nuyu ko mu muuñ ndeysaan ak sàkkar yàlla ba ji bu rafet bi ma ne ko xam nga lu ma indi mu ne ah, waaw waaw. ndeysaan ma ko Mbàkke man dama ñëw pour jox la sama bopp. addina ak alaaxira boobu bu doon togg la ma ni togg ñor na. Mm. mu ne waaw ak murit day mooy gëm yàlla tey jaamu yàlla jaamu gu tege ci sunna sayyiduna Muhammad nangoo liggéey te fonk say waajur yërëm leen lii rek mooy ak murit ci loolu lañu àndee tey sëñ Ibrahima bi ma ko tuddee woon gis nga ko sax joueur la donc lii moom booleeg sëriñ bi muy nag sëriñ boo xam ne amul tànki gannaaw Cheikhul Khadim sëriñ Tuubaa damay wax ni bërigo tiir la ku ci ne ni nga ci sooboo rek noonu nga ci taqee mooy sëriñ Tuubaa daf ñu def ay jullit xaqat ñu gëm sëriñ Tuubaa daf ñu jox ay xol yu pur ñu gëm ni ko tànk murit waruñu beew waruñu fenn waruñu jubati waruñu def lu neexul yàlla man ba kër gi ma bokk muy Daaru Xuddoos yàlla ju set wecc fa yàlla ju weex tàll yàlla joo xam ni ci kennam ngi ci la ne yàlla ju ñu ber ba mu xam ne mooy yàlla waaye nag Sëñ Tuubaa mooy suñu mooy ki dox suñu diggante ak suñu borom Sëñ Tuubaa mooy ki ñuy ñoddil mooy ki ñuy jañal bu dee la yàlla waxoon ne yaa ayuha allazina amanu ittaqullaha ne taqul alayhi wasila cheikhul xadim mooy suñu wasila moom la gëm moom la ñu yaakaar bu doon tribunal la ñu ne mooy suñu avocat jëf na ba sagal ñu yàlla nu yàlla dimbali ñu jëf ba mu di ñu tiitaroo bu ëllëgee yomal xiyaam Sëñ Tuubaa ñun ñoo ko ñun ñoo ko desal waaye wàccoo na ak ñun keroog ba mu tàllee loxoom yaa naan yaa maalikal mulki yaa man jàll alxawadin irham jabel wara ñun ñoo ci des. ñu noonu Zé waxtu wi xoj nañu euh, defe naa ni gars yi déglu ngeen ko ci diggante Tapha ak ki nga xamante ni moo di Balla Gaye waaye ku ne gis na fi nga xamante ni fa lañ ko tëjee muy màggal bi nga xamante ni mooy waaj a ñëw màggalu Seexul Xadim bi lu si waaye def doyul waaye euh, buur buy gëj di buy gën di ñëw rek. bés boobu day gën di neex. sunu <laughs> Serigne Touba yàlla nañu ko borom bi fayal. non dimanche rendez-vous lay jox gaa yi. dimanche yi dimanche plateau bu neex la doon doon bi yëpp. suba gi ñoom du nekk kër mbëri di ko toj. Ah, man ma toog fi ci studio bi di ko toj. di ko def en direct. ñu dóor làmb ji ba mu saf toogaat fii def débrief. merci bi tas jërë ngeen jëf mbokk yi loolu la jël indi lool. Saba Bio présente la gamme cannelle la gamme cannelle am na diw bopp ah diw bopp cannelle pour sa karaw gën a gudd dundal ko fexe nag lépp loo xam ne da siti mu dindi ko dindi lépp luy karaas sa bopp ci boppam karaw be cuir chevelu bi mën a dund am nañu huile cannelle ngir nooyal sa karaw sa karaw di nooy dindi karaas yi huile cannelle mooy huile bi nga xam ne mooy saxal sikkim ndaxte kat ñëpp dañoo jël sëqal sikkim fu mu toll nii am nañu shampoing cannelle à base d'aloe vera ak ginger tel bopp di ko dundal di dundal karaw gi karaw gi gën a rafet waaw waaw di dindi ay teeñ dañ ak yu ni mel am nañu it pomade cannelle ah jigéen ñi déglu leen de ndànk laa koy wax ci suuf duma ko wax ci kaw de day yokk hanche di yokk ginnaaw di yokk tamit dënn bu leen ko wax kenn am nañu tamit loolu nga xam ne moom mooy tax say lèvre di rose di nooyal tuñ xem lèvre cannelle Sara Babio 77. 161 12 12 77 161 12 12 ak Sara Babio moo leen indi produit cannelle bi mujj a ñëw gën a féete xale ëpp doole ci marché bi. nekk benn tali ginnaaw école Madiaye Sall.